ndox bi dama neex trop. waaw maa ngi tudd Mor maa ngi nekk fii fii laay liggéey quoi asile moom lañ leen nii bi ñu fi ñëwee ba léegi lii ça des années daal lii moom yàgg na fi mosu fee dañ chaque nawet nii la trois mois yëpp nii la ñu dëkkee mënuñu génn suba guddi ngoon xale yi fii la ñuy fooyee moom bu dul dara fii la ñuy fooyee chaque jour xale yaa ngi fii di paccax paccaxee te ñu ngi dëkk ci nekk ci dëkk bi naan ay affaire de corona ak lu ne te lii mun naa indi sax lu raw corona. instant dañoo sonn tey dañoo mobiliser wu dem ba ci moom. ñoom ñi ñu ci kan ci kan ngeen demoon. fee ci mairie ba mairie Moussa Sy. Mm-hmm. ñoom lu ñu xamaloon dañ leen ne dinañ fi ñëw léegi lijjanti ko mais booba léegi ñu leen xaar gisuñu kenn. Mm-hmm. mais lii dafa métti kenn mënu see dëkk parce que lii nii ay yoo la boo xool leen pour gis xool du waxu du waxu politique da ngay gis li ñuy wax du wax tappale wala waxu yàq dafa leer naa ni mi ngi ne ñëpp nga koy gis mais nañ ñu dimbali ci lii affaire bi maanaam boo koy noy ku ne fii la lay jàpp ci put fii waaw meew munu ci dara dañoo sonn ci lii ànd ko daal bu ñu ko fi jëlee rek lañ soxla waaw ñu ngi jégalu baax a baax maire fii la dëkk tout pare ñun amuñu maire Moussa si fii la dëkk inte onze fii la kër yaayam ne mais gis na ko ndax daf fiy jaar wala ay gaayam ñi ngi fiy jaar kon gis nañ ko ñëw ci dëgg seen tànk bu ñu koo lijjanti ni si lii su maire yi sonn nañ suñuy yaay sonn nañ maire dañ ciy daanu xale yi di fi daanu lu ne xoolal taatu fenêtre a fi dëkk ay xale yu ndaw ñoo fi nekk ay liiru tooy xepp ñoo fi nekk juddu bu yàggul dara mais nañu jéem a dindi li si lii ah lii moo raw corona